waaw ah, kon maa ngi leen di gërëm ci maa ngi leen di gërëm ci seen teewaay di xam ne dama bëggoon a wax ci ñaari mbir bi njëkk mooy mbir mi nga xam ne xew na stade Demba Diop bi si topp mooy bi nga xam ni moom la ñuy wooyee fraude ci baccalauréat comme ni ngeen ko xamee samedi bi weesu am na final boo xam ne Union Sportive de Wakam ak Stade de Mbour ñoo ko doon fubal ci Stade Demba Diop bi mu desee tuuti pour match bi jeex am na fa ay jafe yu fa am ay xeex am na fa ay sànni ay xeer sànni nañ ko fa sànni nañ fa ay bant maanaam daal ay jëye yu bari xew na fa bi loolu amee aussi euh, nit ñi fu ñu dajaloo bu coow bu mel noonu amee riir nañu riir bu fort ba sax benn mur boo xam ne ci tribune bi la nekk daanu na bi loolu amee yàqu-yàqu yu bari na ci bi waaye aussi ñàkk ay nit yu bari ñàkk nañ ci seen bakkan juróom-ñetti nit faatu nañ ci lu jege lu ëpp tuuti téeméeri nit gaañu nañ ci maa ngi ñaanal ñi nga xam ne yàlla jël na seen bakkan yàlla yërëm leen ñi nga xam ne dañu gaañu maa ngi ñaan yàlla may leen afiya maa ngi jàlle tam njabootu ñi nga xam ne dañoo ñàkk seeni mbokk bi loolu amee nag ubbi nañ ci l'enquête bi ñu defee l'enquête bi dénk nañ ko commissaire u jëppal bii toog ak euh, nattangoom bi di commissaire yor sûreté urbaine bu commissariat central de Dakar man ak ñoom tam ànd nañ dem stade Demba Diop euh, bi ma ñëwee li ma fa gis doy na sëkk ci wone ni xeexoo bi méttee woon ni ñaawteef yi réye woon euh, ni jafe-jafe yi tare woon gis nañ fa deret gis nañ fa ay yàqu yàqu ñoo ngi enquête nag am na ay témoins yoo xam ne ñu ngi leen di déglu am na ay film yu ñu yor bo yoo xam ne ñu ngi leen di xool te am na itam yeneen xeetu renseignement yu ñu jot yoo xam ni ñun ñoo ngi koy jéem a saytu. Euh, néew yi nag yóbbu nañ leen hôpital Aristide Le Dantec pour ku ci nekk ñu wax ñu gaañu gaañu bi la rey euh, nan la demee waaye li ma dëgg bëgg daal mu leer. mooy na ngeen xam ne enquête bi du bàyyi lenn du bàyyi kenn du bàyyi fenn lépp dina leer te képp koo nga xam ne bokk nga ci ñaawteef yooyu yoon dina la teg loxo te dina la indi fi nga xam ne mbaxana fi la doone benn leneen li ci des nga xam ne dama ko bëggoon wax mooy ñi nga xam ni dañ doon tricher lañ koy gën a xamee ci jamonoy baccalauréat man bi ma jotee ay information ni baccalauréat bi am na ay yenn matière yoo xam ne dañ ko doon dañ ci doon fraudé dama boole gendarmerie ak police maanaam section de recherche bu gendarmerie ak division des investigations criminelles bu police ni leen nañ def ndoo enquête bi ndaxte affaire bi dafa xawoon yaatu ñoom ci seen bopp am nañu ndimbalu seen commis seen i commissaire yu nekk Dakar Plateau commissaire u Tivaouane commissaire Diourbel commissaire Kaolack kawlak dañ ko defee jàpp nañ ci ñu bari waaye daal enquete bi li mu wane mooy yooyu yi nga xam ne nit ñi dañ ko doon fraude bi ñu doon ba maanaam euh, matière yi nga xam ne ñi ngi ci doon fraude ñi nga xam ne ñoo ko yoroon ñi ngi ko doon jaayee li ko dalee juróomi junni jëm juróom fukki junni Euh, réseau sociaux yi nga xam ne lu mel ne ay whatsapp ak yooyu nag ñu bari tam moom lañu jëfandikoo ngir mën a paasante yooyu sujet euh, ci gàttal ñeent fukki nit ak ñaar jàpp nañ leen indi nañ leen fii ci man ci parquet bu ñoo ñu bokk na ci ñetti jàngalekat ñu ne ay professeurs yu nekk ci lycée yi bokk na ci benn proviseur benn lycée bokk na ci ñetti nit ñuy liggéey ci office du baccalauréat bokk na ci ñaar fukki nit ak ñett ñoo xam ne ci ñi doon def bac ci lañ bokk waaye bokk na ci ñetti nit yoo xam ne aussi jàpp nañ leen ndax dañ leen a ni daaw bi ñuy am bac tam dañu ko fraudoon comme nii am na si yeneen nit yoo xam ne aussi jàpp nañ leen xam ne ñii ay chômeur la ñii leneen la ñuy def euh, mbir moomu nag ni mu garaawee moo tax bi ñu defee enquête bi ba yónnee ma ñooñu yónnee naa ko juge premier cabinet ngir mu saytu ko seet li ci yoon def ba képp koo nga xam ni bokk nga ci ñaawteef yooyu yoon mën a dal ci sa kaw moo tax am na ci ay njuuma ay ay ay ay ay ay délits yu ñuy wax association association de malfaiteurs ak yooyu yooyu lañ leen toppee euh, juge des juges euh, dina ko gën a leeral